lu ne démb. Mhm. bi match bi jeexee. Mhm. y des réactions. Mhm. surtout la réaction des joueurs. ku ci mel ne le cas de euh, Crépin Diatta. d'ailleurs euh, il fait l'écho euh, son tweet fait l'écho sa réaction. Euh, devant euh, les médias moom la àdduna yëpp di waxtaan waxtaanee tey boo demee ci réseaux sociaux yi ñëpp ñoo ngi waxaat jàpp xam nga sànq euh, Ousmane mu ngi wax ne sénégalais yi presque pare nañ ci match boobu mm-hmm. ñu ngi xalaat coupe d'Afrique bii di ñëw ñu ngi waajal ni mais boo seetloo mm-hmm. tweet bi nga xamante ne nii wala bokk réaction bi nga xamante ne nii ki nga xam ne mooy Krépin Diatta def na ko dafa mm-hmm. yokkaat ci xar mi karaw dafa dafa mel ni dafa exiger à ce que sunu autorité yi autorité bi jël ay mesures mais aussi Euh, joueurs yi tamit xam ne lii xew ci terrain bi ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi mm-hmm. am na benn réalité boo xamante ni mënuñ ko comprendre mm-hmm. donc d'après son tweet mm-hmm. Krépin Diatta euh, avoue être déçu euh, de l'arbitrage mooy écho bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di wax àdduna yëpp moom la ñuy waxtaanee donc li mu wax mooy on ne peut décider du destin d'un peuple comme l'a fait cet arbitre donc mënuñ comprendre ah àdduna yëpp wala Sénégal ñëpp nekk ci ginnaaw une équipe. Mm-hmm. ñu jékki-jékki rek di comporté woo ci ñoom noo xamante nii da nga ñëw. mel ni ku mm-hmm. leen bëgg a liquider. Mm-hmm. ci euh, coupe d'Afrique bi yemul foofu mu ne je pense que euh, c'est déplacé. cest a dire que au-delà euh, de son sifflet. dafa mel ne arbitre bi dafa am une décision avant muy ñëw. avant muy ñëw ci terrain bi. mu continuer wax ne on avait un penalty. mais malheureusement l'arbitre a refusé. Euh, de consulter de la VAR la VAR. Mm -hmm. c'est maanaam xam nga arbitre mën na def erreur. loolu mm-hmm. l'erreur humain. Mm-hmm. mais boo gisee ñu dem ba am VAR. Mm-hmm. ñu am ñoo xam ne lay communiquer ci ginnaaw. mooy wane ne yaa surveillance totale. ci marché bi. donc bu fekkee ne VAR bi ci boppam arbitre bi amul du amul amul amul xalaatu. consulter ko. Hmm. VAR ci boppam des fois dañ koy demander à ce que ñëwul nga xool VAR. bien sûr donte décision bi ci moom lay mujjee. Hmm. mais VAR ñoom itamit mënoon nañoo alerte l' arbitre à mu dem xooli ji image hmm. su boobaa dina xam. bu fekkee ne penalty amul. li xelam dal loolu lay def mooy penalty amul mu ñëw décidé ne penalty amul. parce que bi mu xoolee VARu euh, euh, le camp. du Côte d'Ivoire. lu mujjee. bi muy ñëw ci terrain bi ñu bëri jàppoon nañu sax du décider penalty du décider voilà xaaruñ ko woon. xaaruñ ko parce que bana bañaloon nañu suñu boss en fait. ah même bu dul loolu sax ñu bëri mm. dañu jàpp lu penalty boobu mat mën nañ ko comprendre. Mm. par rapport ak ak ak bële nga xamante ne nii sénégalais yi amoon nañ ko. Mm. donc lii mooy tweet bi nga xamante yemul ca de moom Crépin. parce que au delà de ça. Mm-hmm. yemul ci euh, réaction bi mu def ci média mm-hmm. dafa demaat pas simplement réaction de mu def ci presse bi parce que bi mu taxaw bi li mu wax nii mooy li Mor génne tout à l'heure mm. on ne peut pas décider du destin d'un peuple comme l'a fait cet arbitre je pense que euh, c'est déplacé mm-hmm. on avait un penalty mais malheureusement l'arbitre a refusé de mm-hmm. consulter la VAR li mooy son réaction devant la presse mais bi mu demee mm-hmm. après dafa def benn tweet tweet bi nag moo indi coow li tweet bi def ne euh, vous êtes des corrompus Voici l'expression qu'il a utilisée et ce mm. qui fait écho actuellement sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, dit que euh, vous êtes des corrompus, mm-hmm. euh, donc euh, vous nous avez tués. Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus, gardez votre coupe d'Afrique. Donc après, bon, voilà, tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty. Mm -hmm. un gars comme Assar qui mm-hmm. prend le ballon 40, 40 mètres et fait une chevautée mm-hmm. ou bien euh, euh une chevauchée, mm-hmm. rentre dans la surface et tu ne veux pas aller regarder, regarder la, mm-hmm. Donc je suis désolé, mais euh, là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition. compétition. C'est-à-dire bataille voilà. décrire le comportement, comportement en plus, de l'arbitre. En plus on sent benn lion boo xam ne dafa sonn di wax. à Russie. le lion a rugi. Mm-hmm. donc lu mu dencoon la ci xolam loo xam ne mënu ko woon a bañ a génne c'est un jeune. Mm-hmm. donc boo xoolee Krépin Diatta bokk na ci ñi gën a marqué équipe nationale. voilà Sénégal sax mais les meilleurs joueurs de cette compétition na ci voilà. mu nekk mm-hmm. loo xamante ni actuellement réseaux sociaux a ngi ci wax waa Côte d'Ivoire. jël nañ tweet bi tasaare ko. tasaare ko di ci waxaat jàpp ne Sénégal mer. mais c'est bien xam nga nag maam Khalifa quand a un mot à dire il faut que ñu wax ko voilà te ñun. Euh, problème bii la ñu amoon te man euh, comme li ma la wax rek démb waxoon naa la ko dévouement bi ma gis euh, ci actuellement suñu joueurs yi. Mhm. nga xam ne dootoo gisati complexe ci ñoom. Mhm. dootoo gisati yar gu ëpp ci ñoom baax na c'est bien parce mhm. que dina tax aussi même au delà de football bi nga mën ak ñëpp di ko wax ñu xam ni que doonoo leen ay. ay ay ay nekkoo ku ñuy neexa nekkoo koo xam ne dañuy jël ay affaire di ko teg te aussi bu ñëwaatee ci Crépin ak performance am ren. ak ci li mu génnoon ci at bi loolu également il faut ñu taxaw ci maam Khalifa ñu wax ci mhm. parce que c'est important euh, gis nañu Crépin bu jóge woon ci bee ay blessures yoo xamante ne eh, taxoon na ba kan bee ñu jógee il a pas beaucoup marché comme comme comme mais ñu gis mu ñëwaat vraiment assuré waat postam noo xamante ne vraiment sénégalais yëpp. Euh, gis nañ ko beneen gi même démb ci match bi gisoon naa benn moment mu doon mu doon ak fugg bi mu àndal. Mhm. ba ci voilà muy demandé te man gëm naa ne après ñoom dinañ comprendre que ne Krépin loolu mu doon def c' était juste pour leur faire jouer. Mhm. ñu gën a redoubler d'effort mhm. que démb euh, am na benn geste bu la Jacobs defoon mu tourné mooy bi mu paasee. mu bàyyi bal bi am na benn moment mu ngi ko doon sànni loxo bi di ko gëdd. loolu loolu loolu loolu même bu dul waxu waxu waxu comprendre bi muy wone mhm. donc da doon wone ni que ñoom dañu ñëwoon démb gënoon bëgg match bi euh, que la Côte d'Ivoire maintenant poste bii nga xam ne def na ko il aussi mu ànd ak appui voilà dina jur coow parce que dina jur coow te li Ousmane wax tout mhm. na ko mën na ci am impact maanaam autorité sénégalaise yi mhm. waruñu bàyyi affaire bi mu jàll il faut que ñu bind benn benn benn demande d'explication à l'arbitre sur le comportement de l'arbitre surtout que am nañu la possibilité je dis que notre président de la fédération sénégalaise de football responsable numéro deux ci mmh. CAF mmh. Mmh. kooku kay am na la possibilité de comprendre euh, demander ay explication ci lii donc euh, lii mu def nii dina jur coow nag parce que réseaux sociaux yi fi mu toll nii ñu ngi gën a amplifier waaw ñëpp ñu ciy wax di gën a di gën gën a xajamal affaire yi parce que l' expression les corrompus xam nga corrompu mooy lan mooy ku ñu jënd donc boo seetlee ñenn ñi bi ñuy détaillé di expliquer euh, l' de de de Krépin dañu ne dafa bëgg a wax ne. Mhm. dañu jënd. Euh, dañu jënd dañu jënd arbitre bi. Mhm. dañu jënd match bi. Mhm. dañu jaay match bi dañu rey sénégalais te même terme boobu ñu ngi ko doon dégg euh, ci jamono bi ñuy bi bi ñu bëri euh, jàppe ni que bon. bon Côte d'Ivoire kenn mënuwul woon espérer que ni. mu euh, mu qualifié beneen bi aussi euh, même démb gis naa publication yeneen dëkk yoo xamante ne ce ne sont pas des sénégalais. Mhm. ñoom également mu euh, terme bi nga xam ne Krépin Diatta moom la moom la moom la. utilisé compréhension boobu la ñu am également compréhension boobu la ñu am envers match bi nga xam ne moom moo amoon donc boo seetloo pour ñu jeexal ci kaawu kari Krépin Diatta. mun mm. na am nag ay conséquences. Mm-hmm. il faut le dire mën na am mm-hmm. ay conséquences mm-hmm. conséquences bi moom laay wax mën na am ay suite suite Mm. positif comme négatif. Mm. donc suite bi mooy que l' administration que les autorités sénégalaises euh, mm. prennent leur leur leur responsabilité. jàpp ci aussi ñoom li tamit voilà bu fekkee ne aussi euh, peut-être du ñàkk. comme il a il a des des expressions yoo xam ne c' est un peu euh, kii. déplacé am gars yi xaw a xoromal. mais bu ñu xoromalee rek sénégalais yi xoromal. il faut aussi bu gaynde yi di ñëw ñu accueillir leen.